fardun ala al ibni shukrul walidayni wa mawdoy walidul barru يا أستاذ سنديدو فرد على الابن شكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ مام حاج منصور فرد على الابن السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñuy seetaan ci seen web tv asfiyahi point org nekk le premier site d'information sur l'islam et la tijaniya mooy ànd ak yéen ba tey ci fàttaliku ci weer wu tedd bi mois de mars dafa symboliser lu mag ci biir kër maam Cheikh Alhaaji Malick ndax si la ñaari biddéew yi maam Cheikh Alhaaji Malick amoon muy kan Serigne Babacar Sy Cheikh Alhaaji Mansour génnoon àdduna altine 25 mars Serigne Babacar Sy vendredi 29 mars Cheikh Al Hadj Mansour Cheikh Al Hadj Mansour am lu mu symboliser ci biir l'islam beeg tariqa bi asfiyahi point org fas yéene ànd ak yéen ci événement boobu wax leen kan mooy bal xaw mi Cheikh Al Hadj Mouhamadul Mansour baayu Soxna Faat si ak Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne si Ahmed Sy Sarr bu Serigne Abdoul Karim Sarr bu Louga fas yéene ànd ak ñun ci loolu bokkit ci biir rédaction asfiyahi point org.

nekkoon borom may yoo xam ne li tax mu yéeg moom xaaj Mansour radiyallahu taala anhu léppam seen xaaj Maalik moo ko defoon dafa nekkoon seen xaaj Maalik laylan wa moom ci lépp waaye lettre yi daan bind seen tontu boobu ay atam sax bëriwul wàllu baatin ak kasfu itam li ko ci yàlla defal moom xaaj Mansour néew lu mu ko defal moo tax boo xoolee mag seen xaaj Maalik mag seen Babacar yi ñi ci ñëpp seen taaw yëpp alxaaji Mansour lañ ko doon daana wax ni almansuur turam yàlla may na ko ci turam rek kuñ tudd kenn du la dimbali ci wàllu mayu yàlla yeggoon na ci tudd yàlla moom xaj Mansuur daan yorandoo ñaari kurus di liggéeyal yàlla te benn ci morom kurus du bokk ak morom la ci ci ay wàllu sikar bis na bët yi mu takk fa am jigéen bu dugg si ci néeg bi mel ni ku koy nëbbatu mu ne ko kookan la ba bañ a toon mu ne ko xanaa du diw yow mën ngay nëbbatu yow ma xam kañ ngay dee xam ñaata nangam ngay am xam nga a yoo ko ne ko ma soo ci gënoon a yéeme mooy xam-xamam waaye ko bi nga xamee ni fardul alal ibni shukrul walidayni anta waajib baro sa sindiiru la ko sabab tool boo xam ay tool dëkk boo xam ne koo mës a bay dee génn àdduna jotee dafa ne leen ah loolu de xaw ma kan waaye dugg na fa keroog la def xasida bi bay fa génne fa jëndee yàlla may ko ca baat na mu liggéey ba loo xam ne ma ba at mu dugg des koy waxtaan waaye loolu gën ci yéew sëñ Babacar Sy am na mission boo xam ne keroog ba mu ca dem te mooy geeru France baa ngi ci ak yëpp keroog la sëñ Babacar Sy dinaa yebal Mansour te bu dee bu ñaan yàlla na ko noonu ca la waxee ne boo daw ak la xot ma ñu zëllu bi digle yemunu bi waaye góor bu mag daf ko laaj ci seen xaaj Mansour kan mooy seen xaaj Malick ca Casamance mu yaa bëgg xam kuy alaaj Malick ayaa man yarumu shafaa as-saqam wa xallan min al-lu'lu'i al-mundalam bi axbaari cheikh Ruwayd wasal xabira thumma qul naam fa cheikh murabbin murattal mudarris al-ulum shahir al-arab nee na ki ngay laaj mooy seen seen xaaj Malick cheran cheikhu tarbiya la cheikhu tarbiya la waaye cheikhu taalim maam xaaj Mansour moom nag ndeysaan ñu ci weer yi nga xam ne mooy weeru sëñ Babacar si rawanteeg sëñ Babacar si radiyallaahu taala ñeenti fan nga xam ni keroog bi sëñ Babacar si génnee àdduna te maqaamamu wilaay gi ak ndono bi tegu ci loosam moom Xaaji Mansour waxtu wu nekk daraan génn daan wax ndekete nii la wilaay dëkk nii la diisee la mette Xaaji Mansour nag radiyallaahu taala nekk nekkoon koo xam ne ci wàllu defar nit la ko ci yàlla mooy xaas yàlla. moo tax bëri na mag seen xajmaal yoo xam ni ci loxoom la ñu nekkoon mayu sa xajmaal su yegg na ci bis benn nit mag ñëw ci seen xajmaal yi ko di ko ñaan weer maam Mansour romb xam toog rek téye ji loxo bi di ko jógal yow xam loolu man maay sa sëriñ su gërëm yow xaalu bale teelal man maay seen sëriñ maam na ci mayu yàlla su ngeen toogee mbalaan di wasifa mu bëgg laa defar bëgg laa taal wala mu bëgg nga gis Seydina Muhammad salaa salaam tànkam lay tàllal bu la ko tegee maas la bu la maasee ci saasi rek nga gis yonent bi ci biir bañ ci ci saasi ci mu tabarakallahu euh, ba mu nekkoon nag ku bàyyi jaloore yu dul jeex moom xaaj maas nga xam ni nekkoon naa bàyyam ba lépp si xaaj maas li ci gën a yem nee li ma gis ci sama bàyyi toog na moom moo tax daawul daawul daawul tàllal tànk sax moom sama sama baay bu Seydi Hadj Malick boo waa mën na la jëlee fii xaw ma gis ne jamono fii fi mbir di xaw ma wala nee na itam maa alimtu fii si la am bi ma war a gànnaaw si taw li ma dundal Seydi Hadj Malick yëpp gis naa ñaar yoon laa ko mos a gis mu naan mu neex te ndox taw la woon da koo déggoon doon ca barkeelu nekkoon na koo xam ne nag bëri woon caractère waaye bëri woon xaal ñu ngi dégg suñu pharmacie bi nga wax ci kàmm maam Hadj su dafa nekkoon koo xam ni tabaarakallahu loo yënga ci wàllu baatin mës na def dëkk benn kilifa bu mag di ñi di wan ni dafay wane yàlla maam Hadj Mansour jàng la muy jàng benn pomp la jënd taxawoon ko woo yàlla jërë ngay wane kooku nag la ko yàlla nekkoon koo xam ni da taxalu daan bu tudde seetul xaw dafa laaxoon ci ginnaaw moom it ci weeru tedd la génn àdduna nga xam ne moom sëñ Babacar Sy muy dëkk boo xam ne dañuy ñëpp ci teewaan ndax ku tolloo Hadj Mansour ci wàllu wilaaya wàllu maqaam wàllu arfaan nga xam ne lépp la ko sëriñ Xaaj Maalik defaral bàyyilu ko dara am na nit yàlla yoo xam ne même la sëriñ Xaaj Maalik daan jëfandikoo ci wàllu baatin man Xaaj Mansour daan doon nekk seede ndax sës bu mu sësoon ci bàyyam loo kooku nag euh, moo rak sëñ Babacar Sy radiyallaahu taala anhu keroog ba nga xam ne sëriñ Xaaj Maalik génn àdduna soxna si ñi daf ne ko ñii Babacar du ñu say rek waaye ñii say say doom lañ noonu nag la meloon na sëriñ Xaaj Maalik sëñ Babacar ñu daan ànd bu ñu daan julli ci jumaa ñooy ànd buñ daan ñibbi ñooy ànd añ sax ñoo ko daan ko moo war a keroog bi naar ba defee loolu bu maam xay dem di bind xasida bi keroog añandoowul ak suñu baabu ndax kontaan ak xol bu fees moom nag yal yàlla yokk ñu ci barkeem ba macha allah rabbi eh, eh, nii ñu ni fàttali jëf yëpp ba tey ba yàlla yàlla dafa ci kan mag ñi defal ñu ñu am seen tarbiya ndax lu tax Maodo nee na kat ñaan naa yàlla ba defal na këram ba macha allah ci sunna la ñu sañu dee xay Mansour daañu wax ni daan nañu wax ni jëfe na alquran rayul sunna ragalu sharia lépp lu bàyyi ma xam ni wa kullu ma fa'altuhu nawaytu fihi uswatan sallallahu alayhi wa sallam dundam yëpp noonu la defoon teg ca tànkam muy maam xaj Mansour nga xam ne wax nañu ne 1900 la judd génn àdduna ci 1857 nga xam ni tolloo ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bi bis àjjuma day bis bu rëy keroog du ci xadara jumaa la ko fekk ba ñëwee jéem keroog dafa dagg xadara jumaa la dugg ba jigéen ñàkkaru kër ga ñëpp la génn yebale ni leen na dem fekk ji ba nga xam ni kenn desu fa ngir rek xam ne heure am heure la te jafe na ci nit yàlla nag nga war a dem dem lu yëg ni sa dem jot na te di war a waajale ko waaj ko ñaan yàlla yàlla dafa ñu tawfiq bàyyi asfiya ci sunu kanam yokk seen taxawaay bu jaay seen wuju wa alimu shuhudi di wax ni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fardun ala al ibni shukrul walidayni wa mawdoy walidul barru يا أستاذ سنديدو فرد على الابن شكر الوالدين و mawdoy waalidul barru yaa ustaas mam xaji Mansuur ne fardun alal